d'accord parce que mënuma leen wax ne leen xawma li Idrissa Seck namm ak li muy dox <laughs> te aussi mënuma leen ko wax <laughs> li ma mën daal mooy ne leen junj doy na borom xel position am euh, mënoon naa gën a confortable bu desoon comme chef de file de position mais à condition que réew mi ne fi ba tey stabilité bi bi ne fi ba tey mm. ndax gis nañ fi réew bu mel ne réew ñu wër bëgguma leen tudd président ya fa nekkoon nekk ci xinimini nii comme li may ñu dégg mais ba ñu foogee ne xañ na xeexu politicien kese la fa mu mujj mooy ci yi takk der loolu Sénégal ñaan ñu ko yàlla du fi am yàlla bu mu fi am xel xalaatu ko xel xalaatu ko parce que Sénégal beneen façon dëkk la waaye bu doon tey sa nekkoon na ci biir opposition wax naa ko sànq xañ na kon demee woon na neneen léegi nag position ci biir coalition bi ba léegi moom ci biir coalition bi la nekk. parce que coalition bi désigné gul candidat moo tax. moom tamit mënagul déclarer candidature officiellement. mais ñi ngi yaakaar ni xañ na coalition bi. bu ñu dee def appel d'offre rek pour seet kan moo gën a nekk en même. pour meilleur profil. yéen a ko wax léegi fii ci wàllu communication ci wàllu homme d' état ci wàllu xam état ku mës a nekk premier ministre. yow yaakaar nga ne oh, appel d'offre dina am biir benn. ah man xaw ma benn xaw ma fa dara parce que man bokkuma fa. <laughs> man bokkuma benn bokk yaakaar. Mm. conseil wu Idrissa Seck laa. Mm-hmm. faa dem musuma faa toog aw mag ñoom benn contact benn benn rek bi gën a tuuti. d' accord mm-hmm. waaw benn bi gën a tuuti. d' accord dans une télévision. Mm-hmm. aw ma ko ak ñoom. Idrissa eh, di ko jox sama xalaat. mais yaakaar naa ne. Euh, protocole bu amee du protocole bu nga xamante ne Idriss Seck daf ciy nekk euh, maanaam un canard boiteux hmm. ndax ku xam état le 19 mars nga installé fi un président de la république en 2000 nekk directeur de cabinet président de la république dem ba nekk premier ministre am jaar Sciences Po Paris jaar Princeton. Hmm. xam na nan la état di doxee donc doxul ci émotion. Hmm. day dox ci quelque chose de de rationnel de raisonnable. réew dañ ko war a protéger dañ ko war a aar. boo gisee soldat jóge gàddu fital dem xeex yi pour protéger réew mi te xam na ne ba kanam mën na faa des devoir boobu nekk ci soldat boobu mën koo defi même devoir boobu nekk ci homme politique ba mu mën a ip avenir am quelque fois pour réew mi des fi ba tey wax naa leen ko sànq bi ñu soo commencé waxtaan donc bugguma bi di nettali géntu jàmbur mm. mënuma nettali géntu Idrissa Seck dinaa wax ak moom nag xam naa à peu lan la ñu namm mais li ma xam daal mooy ñun waxuma moom li mu bëgg de ñun ñu nekkoon ci coalition la plus grande coalition àndoon ak moom. Mm-hmm. lu ñuy yéene mooy mu nekk candidat à la présidentielle de 2024. personnellement Lamine Ba looloo tax ma toog ànd ak moom waajal di muñ boo ba léegi pour mu nekk candidat à la présidentielle de 2024. ndax waa benn dinañ ko def jubóo na ci ak ñoom est que jubóo wuñ ci est-ce que am na protocole loolu du fii laa a waxtaanee. Mm-hmm. ñi ko bëgg te ànd ak moom te wóolu ko te yaakaar ko gëm naa ne bu ñu yàlla dimbal woon ba ñu juboo seen biir ñoom bennoo ak moom ba ñu teg ko ci kanam mu jiite réew mi boobaa jàmm dina gën a sax dina gën a law